waaw ay waay waay waay sa sañu grand suñu grand kontaan nañ mais non xam naa ne kontaan ngeen xam naa ne kontaan ngeen Sénégal yëpp a ngi lay déglu ma ne ko dañ lay bàyyi nga nuyu sénégalais yëpp a ngi lay déglu ndeysaan namm nañ la lool waaw léegi moola yow moom hmm. dama def benn affaire bu exceptionnelle parce que hmm. euh, damay tàmbali d'abord hmm. di nuyu sénégalais yëpp ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay Sénégalais yëpp bu a baax a baax a baax a baax ku nekk ma jox la sa wàccuwaay. ndeysaan ñu ngi lay fay. ñi wax lu baax ci man. li mm-hmm. wax safaan bi. Mm-hmm, euh, muy benn. Mm-hmm. ñaareel bi mooy euh, di gërëm di sant sénégalais yëpp. ñu ngi lay delloo. Euh, su ma ne voilà fi nekkoon fële. ay nit ñoo xam ne xaw ma leen ci aadama awa. daal tagg seen biir. Mhm. ndax sebi da sori. sebi kotaan. jeudi wala xam nga permis de visite dañ ciy juum def ci mardi vendredi mais foofu jeudi rek la ñuy recevoir. Mhm. ñun suñu section fu ñu nekkoon. Mhm. kon dañ doon ñëw ñoo xam ne duma leen fa fekk façon teraanga bu ne ñu ko fa doon indi. te xaw ma aadama ak awa. lépp rek ñu jàpp ci li nga xam ne moo di euh, sama taxawaay. ci réew mi lañ xool naw ko fonk ko mm-hmm. jàppit na liñ ma def tooñeel la bu mag sax bu jéggi dayo mm-hmm. sénégalais yi dama leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax sama njaboot nag mooy ci fi ma bokk mm-hmm. mooy njabootu taskatu xibaar yi parce que nag lu mu bon bon ñii wax ne du journaliste ah démb ak bërki démb de sama téléphone bi daan na seeni woo pour ma sarax leen may leen plateau. Mhm. <laughs> wala ma defal leen interview. Mhm. te yaat naa koy seedeel. Mhm. réew mi ñi seetaan. ci télé yeeg wala ñu ma déglu ci rajo. bay naa ci sama waa li nga xam ne moom laa tànn di ko def muy métier wu journaliste. naa sax Sénégal. ndaxte réew yu ñu wër yëpp amul kilifa boo xam ne demuma fa def ak yow ay interview hmm. kon ñi naataabale la journaliste la ak du man du ma dugg ci débat boobu hmm. parce que an dama dox ne ni taxawaay la ak tolluwaay man weesu na hmm. man nag maa tànn nekkal fi askan bi dëgg la parce que am na loo xam ne boo ko defoon yomb na torop torop torop nekkal fi askan wi nag mooy moom sa bopp am sa liberté de ton loolu dafa am solo njaboot gi ma bokk rek ñoom ñépp gis naa seen taxawaay euh, ci li xew ci mbir mi ma koy rafetlu di leen gërëm combat de principe lañ leen mënee ñu ne pour corporation bi may rafetlu seen taxawaay ci combat de principe bi di ci beral nag ngërëm ak sant ci rédaction yi ak ndaw ñi nekk ci rédaction yi mm-hmm. convention des jeunes reporters du Sénégal mm-hmm. moo laa li may wax ñëpp koy dégg ñëpp bokkut ak ñu ko sanc man Abibula Fall Ibrahima Lissa Faye Moustapha Diop ak ñeneen ba Babacar Sow bu nekkoon populaire mm-hmm. ñu koy xeex di ko xeex di ko xeex ba samp convention des jeunes reporters du Sénégal ñun ñoo xeexit ba jël dix pour cent aide à la presse boobu Mamadou Diop Decroix moo nekkoon ministre de la communication dix pour cent yi. Hmm. des trois cent millions muy trente million ñu ne patron de presse yi doo leen ko jël di ko paacoo. Hmm. dix pour cent yi formation te mu dix pour muy trente millions ñu jël quinze millions jox ko CESTI jël quinze millions jox ko ISIC ne rédaction yi. Hmm. dem leen ci seen correspondant yi nekk ci biir àll bi ñëw tàggat leen ci wàllum tasum xibaar. xanaa kay bay naa sama war dëgg loolu sax. mu nga ci. dama ne. Hmm. ma jàmbal dañ ko kaso. ma jàmbal marche ba ñoo ko organisé. Hmm. ko ko jox marche ñoo ko organisé guddi ba ñuy négocier si njëli Wade mu ñuy wax nañu euh, Khalifa Sall dégg nga Khalifa Sall te euh, Talla Sylla. Hmm. Euh, de sam papa bëgg ko ñuy xool parce que moom it. jigéen ju baaxoon la xamul tax ma ne jigéen ju baaxoon jigéen ju baax la parce que dafa nekkoon ci wetu baayam lu mu gisoon crise moom da koy daw artu ji ko hmm. pour jéem ci xool solution hmm. ñuy négocier ak moom ba keroog ñuy ma jàmbal def cortège ba ñuy génn di organiser marché bi xanaa bay nañ suñu waa donc duñ fi nekk ñun di wax lu ñu def ci presse bi hmm. waxtu la woon dañ défendre corporation bi def ko kon tey soo ma gisee ku mel ni Ibrahima Lissa Faye ma koy delloo njukkal lool Hmm. léegi la jógee clinique ba ak man. gis nga Ibrahima Lissa Faye daf maa xam parce que dañoo doorandoo ci biir sud. moo taxoon mu xaroon tànk tubayam li ñuy wax yëpp moom mu xam kan mooy Pape Alé. xam hmm. ku def vingt ans amul benn leader politique bu ma fréquenté man fii amul kenn ku ma gisul sa moment de faiblesse laa wax. Hmm. wax ma la sa moment de faute te moment de toroxtaange laa wax amul. Idrissa Seck xalifa salloo Macky Sàllo ah hmm. ñëpp laa wax dama fekkee hmm. ñu teg ma lii nag ma nangu ko dund ko ak dignité nag hmm. parce que dinaa ci dellu siwaat euh, bu ma gënee dama la beral exclusivité parce que li nga daj moo tax molaa dama nekk ci prison bi ku ma gis mu ne ma boo génnee ba sama soxna. Hmm. ma koy gërëm di ko sant. xale la mais taxawaayam dafa impressionné Sénégal gi yëpp ci dignité. Hmm. xamul dara xamul ku dul man. mu vivre ko avec dignité. Hmm. ak courage taxaw ma fu ne. taxaw ma fu ne ma koy beral sant gu amul àpp dama koy wooyee la gardienne du temple. ndeysaan. donc ma dund ko nag avec dignité anam ñin ma jàppee xam ngeen ko. Mhm. police torture yin ma fa def xam ngeen ko. Mhm. moo laa jàpp nañ ma quatorze heures quarante cinq chaque jour buñ may auditionné minuit jot na xanaa ko jàpp quatorze heures quarante cinq am nga tout la journée pour auditionné ko. tey. loolu bi xam na ko parce que mi ngi ci PV yi te ba ma duggee ci biir biroom wax naa ko ko. Mhm. du ma dellu ci waat xam nga ñoom dañuy dañoo décider ne dañ may mettre sous contrôle judiciaire tere ma dama bul wax ci dossier bi dama leen di wan na ñoom man maa leen gën a doon républicain maa leen gën a respecter justice. Hmm. du ma wax ci lu nekk dossier bi xam nga lu ñu tere ma cee wax. Hmm. am ne bu ma toogee nettali Sénégalais yi li xew ci dossier bi yëpp. Hmm. Sénégalais yi jéppi leen. wala ñu génn fippu taal dëkk bi kay. voilà. dafa garaaw taal dëkk bi. Mm-hmm. xam nga lu ma mm-hmm. xam nga lu may dox fi mu mm-hmm. dama koy ñaan sénégalais yëpp nañu am intelligence ba police gendarmerie. ñu téye fi leen di téye ñun suñu problème ñu réglé ko ba police ak gendarmerie du am benn intervention bu mu mën a def. xaw ma ndax comprendre. bu baax bu baax bu baax. maanaam police ak gendarmerie bu leen may euh, pour ñu mën di dugg di def xam nga dama doon wax ne liñ ma def. ci milice rek laa gis mo koy def te wax naa leen ko biir police milice milice rek laa gis ñuy enlever ay nit. Hmm. Mollah képp kuy dox Sénégal boo waxee Pape Alé ñu ne son téléphone sous écoute. Hmm. ay at këf sa téléphone. et puis dañoo li jaax këf sa téléphone mel ni jàpp nañ miinu jamaa. incroyable. dama lay xoolal ñun. imagine toi ay ponkal yoo xam ne ñoo sut yëkk ni ëpp ko wër la ak seeni pistolet man koojoor bi nga xam ne tollu ma nen <laughs> sama grève la faim xam nga lan lañ bëggoon ñoom il pensait que man man tu sais dama intégré loolu parce que képp ku nekk fii Sénégal jamono yii di dox te nekk nit am dignité et tu restes debout di ñu te dénoncer ay ñaawteef yi am ci hmm. mais boo nekkee nit sóoral na yéen sa kaso pare na. dëgg la voilà man dimanche lañ. Mm. man dimanche lañ ma jàpp bala maa am dossier. woo nag administration pénitentiaire pour ñu defar sama cellule te amaguma dossier sa xam nga loolu. dëgg la dëgg la. dimanche lañ ma jàpp dimanche laa la wax de imposé ma audition dimanche suñu audition dimanche mu ngi jeex deux heures trente du matin. le lat ñu lajju le lendemain ñu bëgg ma imposé beneen audition ma bañ xam nga foofu tamit laay wax suñu mbokk sama mbokku journaliste des fois damay reetaan xam nga tax may reetaan. Hmm. gis nga bañ nekkee ci kaso bi ak détenu yi dañ jàng lu bëri ci presse bi. Hmm. parce nga lu ñu jàng ci presse bi ba wax man leen déglu leen kii li muy wax da ngay gis sax benn journaliste boo xam ne da lay di wax ne dégg naa par exemple benn journaliste du ma tudd turam du may bës di wax ne oui même s'il a commis une erreur man leen damaa bëgg ngeen wax. des lâches. de temps audition deux heures de temps auditionné ma ko kenn posé wu ma question si secret défense. billahi wallahi wa taalahi deux heures de temps. Hmm. te ñëpp dañ daan wax ne dama génn document secret défense. <laughs> deux de temps auditionné nañ ko kenn laajuma si secret défense. li may wax ni bu nekkul dëgg. non grand mais ñun dañoo gisul mais grand ñun gisuñu secret défense ban dossier la anum anum. j'autorise le juge à sortir le PV. <laughs> vraiment. parce que xam nga secret des structures amu fi Sénégal. Hmm. la preuve man ban may auditionné ak policiers xam nga lan laa leen wax nee naa leen lii ngeen di bind deux heures du matin ni o mu nekk une journaux yi kon da ngeen xool kan moo koy génne te yéen yéen a ko def. yéen. quelle lâche ma ne ko yéen rek yéen a ma ko man hmm. je je suis dans les lignes de la défense du moment gu mën a génne. Hmm. moo tax réew bi li fi yàqu dafa bëri xam nga man lan laa jàpp. lan laa gën a jàng comme leçon. on a bâti des choses sur du mensonge. Mmh. des mensonges matin midi soir. l'empire du mensonge fii. Hmm. non dégg nga fii moo ñu lay wax ne la way Pape Alé deux gendarmes yoo xam ne xaw ma leen ci aadama ak awa benn journal un torchon. Hmm. bind ne ma toog man yeewu sama cellule di seetaan télé benn bind ne way la ñu ne disparition. volontaire te tey ji gis na na waa ji dafa de kenn ki dafa dee ku disparaître volontaire xanaa doo rey sa bopp. waaw dëgg dëgg. <laughs> ba pare ku disparaître volontaire xanaa doo rey sa bopp. da ngay disparaître pour daw. Mm. kenn ki dee dee na keneen ki moom mu ngi xaw ma nouvelle am. Mm. léegi moo laa ñoom wax nañ ci soldat yooyu. Mm. moo man ma lay gënal ci rasulullaay na leen xaw ma leen ci aadama ak awa. torsion bi bind na c'est lié c'est lié man de toog naa juge ba génn. Mamadou Seck mi ngi lay déglu parce que yow ñëppay déglu say live. Hmm. ñoom sooy wax lépp ñëppay déglu la toog naa fa ba génn posé wuñ ma question si ay soldats yu disparaître hmm. amul sama dossier muy benn. Hmm. ñaareel ba. toog nañ fii ñuy wax na waay loolu soo téléphone à parler trop parler wala tata di wax man dama daan ree ma ne leen sama téléphone bu parler xanaa dinañ ma génnawaat cellule woo ma tegaat ma audition na ma gis nañ sa téléphone lii ak lii. man de dugg naa ci juge bi ba génn posé wu ma question su téléphone. man de dugg naa fa ba génn. l'empire deux heures d'audition. l'empire du mensonge. laaju ma. Hmm. ma ci sama téléphone laaju ñu ma ci ay soldats yu réer xam nga lan lañ may laaj. Hmm. bëgg ma dugg ci dossier bi te ma daan laaj bëgg ma ci dugg parce que samay avocat ñaan nañ ma ko na ma wan leen yaa leen gën a nekk républicain hmm. mais may wax sénégalais yëpp li ñuy coow li yëpp. 37 jours de détention li ngeen dégg man xam ne nu ma leen wooyee. Hmm. les charognards et les déchets humains yi nekkoon ci télé yi di wax ñëpp ay charognards lañ ak ay déchets humains hmm. ñooñu ñëpp di wax noonu liñ doon wax yëpp man de Mamadou Seck laajuma ko xanaa moo amaat beneen procédure bu bees mais procédure bi ma jàppee dogal ma ci sebi ay militaires yu disparaître bokku ci ay téléphone bokku ci. Hmm.

Exact. Ils sont inhumains. Mm. La preuve. Voilà, nga may mbokk. Hmm. tey jii man damaa fekk Karim Gueye kaso kaso damaa fekk Cheikh Mate Diagne kaso. Hmm. ñoom dimanche passé lañ def trois mois de détention allah akbar trois mois de détention yoo xam ne nañ waxante yàlla dëgg rek te yàlla dama bëgg ñu ñu may dégloo xel. nit ñi laa wax de waxuma les charognards et les déchets. nit yaa ngi lay déglu bu baax. sama tolluwaay mayatul. Hmm. non mayatul man may tontontoog ñooñu. Hmm, hmm. sincèrement parler parce que damay wax dama wax ne ku ndeyam liggéey doo ñëw toog sëgg ci nit di wax da wax ci réew mi man sama ndey liggéey na ci réew mi laay wax. waaye yow amoo benn objectif lu dul yow ci nit rek ngay wax. moo tax góor yëpp a ngi lay déglu grand góor yëpp a ngi lay déglu. moo tax ma ne ndeyam moo gën a liggéey sa ndey yow. moom. ndeyam liggéey na bay wax ba am benn présence boo xam ne yow da ngay wax ci moom. Hmm. waaw. kon nga xam ne ndeyam a gën liggéey sax ndey. kon nga xam na du sa morom. muy benn. Hmm. xoolal ñooñu ñu ngi leen dugal ci biir kaso bi def nañ fa trois mois. yow xam nga lan leen jàpp. dañ leen jiiñ ne dañoo diffuser fausse euh, nouvelle euh, day fausse nouvelle. ci la parce que wax nañ ne Imam Ndaw. buñ hmm. ko tëjee kaso. sekel yu mu dund peut-être moo am njeexital kan mooy dugg kaso too doo am man mii di wax ak yow nii. Hmm. Hmm. bëgg a gis sama njaboot moo tax ma dellusi nii sama kër. Hmm. mais suba damay dem clinique parce que clinique laa jóge nii. ñu defal ma check-up xool ma lépp. pour xool ndax amul lenn c'est normal. imaam ndaw ba mu jógee duggee kasu ba génn la am ay feebar ñoom ñu wax ko xam nga loo wax mu ne fàng. xam lu ne fàng kay da koy yóbbu flagrant délit. waay waaye yow pour bundu xotal ak soxarante ak tëj kaso xam luñ def. Hmm. yóbbu leen instruction te ki leen yóbbu instruction da lay wan vidéo bi ne yaa wax lii nga ne ko waaw man maa ko wax de mun na la xoolal mun na la waa d'accord mais maa ngi wëri li nga wax delloo la kaso dama bëgg ñu déglu bu baax li may wax sénégalais yi dama bëgg ngeen yeewu incroyable xam nga man di taxaw di wax ci ay Macky Sall yooyu sax intéressé ma parce que man Macky Sall il faut le conjuguer au passé. Hmm. man foofu laa toll quoi donc voilà loolu am ñooñu ñu bàyyi leen fa déglu bu baax li ma lay wax. Ah, ñu ngi déglu bu ñu kaso. Hmm. entendre leen parce que maag Karim Gueye dañ doon grève de la presse chaque jour man du ma génn daaw ma génn ku dama doon toog di liir di bind moom day génn chambre am ñëw demoon na sax ba doon yi léegi dañ koy tëj moom ubbi ma wala wala ñu tëj mais man ubbi bi safu ma woon parce que du ma génn. ñu <sighs> génn ko ñu génne ñu ñu ñëw ñu ñëw bu ñëwee toog ñuy waxtaan mais xoole imagine toi nga jël ay toogu jàmbur ay papaay jàmbur ay jëkkëru jàmbur nga tëj leen ci biir kaso bi mu ngi fa trois mois. yow nga entendre leen ci loolu ba pare ay avocat sàkku liberté provisoire nga téye liberté provisoire dix-sept jours hmm. dix-sept jours hmm. doog leen tontu est-ce que loolu jaadu na non hmm. nañ waxante dëgg rek te yàlla par parloo bi parce que ku sa frère wala sa mag wala sa doom wala koo xam wala sa jegeñaale nga kaas ko am na wala amul am na kay siwut métti na de combat bi ñu war xam nga mooy lan hmm. combat bi war a takkar naase hmm. ñëpp war ko mën a xam nga lan hmm. mooy il faut exiger la libération de Karim Gueye Cheikh Oumar Diagne immédiat et sans condition mais ñu génne leen parce que trois mois def nañ kaso bi ci ay wax wax yoo xam ne xam la tegu xam nga wax fan la tegu ay imam dañoo ko jël wan ko soxnay président de la république ay imam ay imam de ñoo ko wax ñoo ko wax sax ñoo ko ay imam ñoo dem ba gis Macky la woon ko ko ne ko ñi ñoo ñi ñoo wax ne yaa rey kii yi non soxnay président kay ah président ñoo ko wax soxnay président xam nga moo tax yëpp kenn mënu koo wax mm-hmm. yëpp kenn koo wax xam nga lu jaaduwul bu ko xool ci keneen rek parce que dafa amoon benn xeltukat bu mag avocat la bu mag ci mm. yoon jour bu ñu jàppee Idrissa Seck mu koy défendre xam nga lan la ma wax. Hmm. man laaj ko mu gis nga buñ jaaree ci borom ndollu bu sew dal ci nit ci wàllu yoon. Hmm. yuuxu ko ba mu ci ko parce que boo bàyyee mu jàll suba bunt bi lay jaar. Hmm. dal sa kaw. pour vous dire que vraiment euh, mola réew mi nañ jéem a décrisper situation bi. tëj ñëpp kaso. teewul sénégalais yi buñ la suutee doyal ci yow da ngay dem. voilà mhm. budde dina am ñu résister te xam nga kaso bi lan la lay jox. Mhm. esprit combattant la lay jox boo duggee kaso mit bi dee na. kaso mhm. lan la. tous. privation de liberté. boo ko duggee dund ko mais nag may rafetlu taxawaayu administration pénitentiaire. billaay wallaay taalaay ma ne koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax gis nga ba ma duggee. Hmm. dañ ma woo parce que ñoom xam nga ñoom foogoon nañu bu ñu dugalee Pape Alé Kaso dof na. Hmm. fay nekk di xuloo dof na il va péter parce que xamul loolu mais kaso du dara ñoom ñoo ragal kaso xam nga sama jabar bañ may dugal kaso lan laa ko wax. Hmm. dafay ree mën na sa jëkkër mënamul tax mën ko. bañ ko bëggee dugal kaso moom demul di raam mel ni walax njaan wala si ndax ci kanamu benn autorité religieuse di ñaan njekk bañ ñu dugal ko kaso. di jooy. Mhm. di jooy. defoo ko de. ma ne ko man nekkuma walax njaan. Mm. wala wala sindax ndax bu boole ci ay jooy ci kanamu kilifa diine di ko wax ne boo intervenirul duma duma du damay dugg kaso. Mm-hmm. je l'ai vécu dignement. waaw <laughs> Karim lan la no mais grand yow ni ngay sa kaw yow daal faale ma ne ko Karim maa ngi liir maa ngi liir maa ngi bind. c'est hmm. après. oui comme Cheikh Omar mi liir mi ngi bind. ndeysaan laay la kaso ak bàmmeel foofu wala dañoo wax nag foofa dem fekk fu ku la gën. ak ki nga gën. kaso ak bàmmeel boo fa gën. waaw wax. dëgg damay dégg ñu koy wax. beneen bi mooy. mais man ma toog jàkkaarloog ay nit ñoo xam ne dara safu leen. rey nit safu leen ba ma wax ne ma woy grève de nga ci dee mën leen day yokk ci liste quatorze morts yi rek safu leen ñoom. Hmm, safu leen de. day yokk ci liste quatorze morts yi rek parce que am na fi. te hmm. quatorze morts ba tey ji ken mënu leen dëj convenablement parce que kenn xamul ku leen rek commission d' enquête ba ñu xaar ba tey. seen xam wala amul. ah ok Kaba moom ko dégloo. Hmm. xam nga lu a lu ma doon gën a reetaanloo ci biir kaso bi dama <laughs> dama doon ne mais ñii di défendre mais défendre leen gouvernement mais éviter d'être des crétins quand même. parce wax Sénégalais yi finalement jàppale na leen vous vous êtes des crétins véritablement. oui. donc vraiment. c'est de lâche ko avec philosophie. avec responsabilité. respect administration terre bi jàmm ak salaam ñu teg seen règlement intérieur man leen man sama règlement intérieur mooy dinaa fi dugg ba génn du ma dégg ma salfaaje seen règlement intérieur dama bëgg suma ma génnee di wax ngeen respecté kon du ma def lenn luñ may xeebe fii ci biir kaso bi. Hmm. du ma génn du ma def dara dama toog sama cour dix heures bu ma wooyee dama tuyaat la possibilité d'appeler ma génn li nga xam ne su ma daan woote. Hmm. dañ laaj numéro bu ma woo ak lu ma ko séqal. ko nga dama leen koy yombale woon xam nga lan laa doon def. Hmm. man sama jabar laa doon woo ak sama yaay. bu bëree ba bëri sama avocat yi ñetti numéro. ñetti numéro. madame laa doon jël pour nouvelle jël nouvelle boy booy woo bi pour rassurer ko troisième sama avocat yi laa doon wax ak moi. ba demee ba xam ne lii xaw ma lu ma nuróol nag safetuma dara ma leen nag damay jog xeex. très bien. jóg xeex laay def man. ndax ma ne leen man damay xeex hmm. fu mu yem neex. moo tax def nga lu tuuba nooteel bi jeex. waaw tey vous êtes libre. donc xeex. ASID TV la chaîne des patriotes. lay tàggatoo yow ah. Hmm. di la gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax. di la ko delloo grand di la ko delloo. parce que sa taxawaay. non sa taxawaay dafa mucc ay ASID TV la chaîne des patriotes. ñu ngi koy ñu ngi doog wax. <laughs> dama la doon déglu. Hmm. nga may déglu. dëgg la ñu am respect mutuel. Hmm. ndeysaan. donc c'est la première fois ñuy wax ni donc ma lay wax ne la maa ngi lay big up baax a baax a baax a baax. mais grand sa dernier live bi dooguma la sa dernier live bi sax da ma big te boobu mosuñu wax. ñu jàpp la ma ne waa ji dafa mel ni daf ma am lu ma dénk ca ba muy dem parce que daf maa bigam am lu ma jox gis nga kii bu dee ma dee ànd ak moom lu ko dal ma dal ànd ak moom à partir d'aujourd'hui je déclare nit pare naa ci benn guerre infernal ak contre le gouvernement dinaa jaar fu xasaw ci depuis bu ma ko commencé waaye yow xunnu kay nga fa waay fu kaso depuis boobu seen lépp lañ xam seen ndey seen bàyyi fuñ juddoo fuñ yaroo fuñ màggee doomu biiral yi ba ba da leen a jaxase. kenn mënul wax lépp de. la chaîne hmm. man nag hmm. euh, de dinaa ko def sama nañ trouver solution ñu génn ci kaso hmm. ñu génn les autres ñi nga xam ne dañ leen jàpp hmm. ci waxi président bu nekk xam yaa ngi déglu Mollah man xam ne da ngay déglu Mollah wala sa soxna di ko déglu wala say doom wala yooyu ñu ngi jëm ci décembre hmm. trente et un décembre xale yii ñu jàpp ci ay jàpp yoo xam ne même juge yi leen di jàpp seen ulaayi taala xam ne du dëgg mais ku sañ ta bañ sañ a nangu. mais xaaral ma seedeel la loolu xaaral ma seedeel ngaa avancé dañ laa jàpp yobbula la di la di commencé enquête. état bi gouvernement bi woo ma direct. waaw bu ma déclaré ne dinaa commencé attaqué leen ñu ne ma xanaa xamoo ni Pape semaine bii passé mi ngi woon Mermoz Macky Sall recevoir na ko am na lu ñu wax waaye la mu defut te la mu engagé wu te defu ko moo ko jural lii te maa maa ngi koy doog a wax fii maa ngi koy doog a wax fii. léegi bañ ñu waxee loolu ba pare. Mhm. xam nga lan laa leen wax. Mhm. ñetti laaj laa leen laaj. xam nga Mermoz moom kenn doo fa kenn du fa dugg te woowuñu la fa. Mhm. voilà. waaw dëgg la déedéet waaw kenn du la woo Mermoz kay du n'importe qui fay dugg dañ lay woo. la ñu wax ca troisième mandat ba. Hmm. la ñu wax ci libération Karim Cheikh Oumar Diagne te xaw ma woon na maa leen fekk la ñu wax ci force spéciale yi dama leen wax ci décryptation libre euh, réew mi. nañ hmm. bàyyi nit ñi ci jàmm jaarale mbir ci yoon bàyyi waxi troisième mandat. <laughs> moo tax bañ ma ne bañ ma woowaatee ne ma lu tax doo wax loolu ci live ma ne ko parce que damaa xam ni gor gii nii kii du jaay mukk askanam soxlawul ma koy wax parce que xam naa ni Pape Alé li ko bëggoon wax loo waxu ko li ngeen ko bëggoon def loo defu ko moo tax tey ngeen koy tëj ci kaso yi donc kooku soxlawul ma koy wax askan wi ma xam lu ma xam dëxëñu toog noppi. parce que kenn du ma manipuler man kenn du ma manipuler. voilà combat combat yi ma yëpp. Mm-hmm. combat yi ma yanu yëpp ban moo ci am répercussion directe ci man. Hmm? Hmm. benn benn benn kay benn gisuma ko. benn mënoon naa ko ñàkk wax du ma wàññi dara. gor nga garmi nga de. su koy wax xam nga euh, ba may gunge Macky Sall di jën ko blanchiment d'argent sama yoon daf ci hmm, sa yoon neexoon jaay sa bopp heure bi day nga ma grand bu la neexoon. ba may toog ci plateau 2S. Serigne Mbacke Ndiaye mii. annoncé na Wade jàll na avec cinquante trois pour cent. Hmm. am benn site internet bu ko bind. Hmm. ma taxaw na leen c'est faux on va vers un second tour Macky Ablaye Wade. Hmm. fii la ñu fekk no dëgg dem xooli. dëgg la. man man dañuy wax ma ne leen natt leen ma ci man. toog naa fii di défendre sa Seck bañ na pro sa Seck la ma toog di défendre Khalifa Khalifa Sall. ba ko xam nga Macky Sall doomu doomu bàyyi lay woowee Khalifa Sall. Hmm. jàppee ba non toog naa di défendre Macky Sall fii bañ na pro Macky la gis nga Macky Sall ba mu yeggee au pouvoir. Hmm. dafa taxaw buntu 2S am kenn ku ma doon ma ne ah, yow looy def fii. ma ne ko lu may def fii mooy lan fii laay liggéey mu ne ma ah yow Macky Sall jël nguur gi da ngaa a nekk ci wetam Macky yow joxu la benn poste ma ne ko parce que da nga foog ne loolaa nuut. Hmm. gis nga. <laughs> gis nga nag xam nga nag dinaa la nox xam nga dañuy wax xam nga ñoom ay waa papale ku koy informé ku koy fu ñu renseignement loolu mooy seen problème mm-hmm. dinaa leen wax na commencé na am problème gis nga ci jàpp bi mm-hmm. dafa bëri ay policier ay gendarme mm-hmm. yu ma yónnee ay message de soutien dëgg la na ma génnal ak jàmm loo bëgg a xam ñu wax la ko <laughs> te yàlla xam na ne xaw ma woon aw ma woon ay contact yooyu partout kon nag def leen ndànk hmm. soyez prudent def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk hmm. boo yi dugal kaso buñ découvrir métti kaso ba génn duggaat kaso du leen saf Guy Marius Sagna ñaata yoon la dugg kaso day nekkul député hmm, waaw de non boobu la problème da donc il faut que les aussi vraiment man de dama koy ñaan ñi wër président Macky Sall di wax ak moom ni koy xiiñ su nekkee ne am nañu baax parce que xam nga président Abdoulaye Wade lan moo nekkoon fort bi sax xam nga ko euh, Mola hmm. tey ma wax la ko hmm. dafa mën jigéen ju baax ju nekkoon ci wetam hmm. jigéen ju baax laa wax bu nekkoon ci wetam jigéen ju baax bu nekkoon ci wetam xam nga jigéen ju baax jooju lan la waxoon kan la woon sinjeediw Sindiély Liwaat a été euh, aux côtés de Sud FM ba ñu tëj ba ñu tëjee ci affaire Salif Sadio di wax ak papam pour ñu libérer ñu Sindiély a été côté ci papam ba ñu jàppee affaire ma jàmbal di négocier pour ñu libérer est-ce que Macky Sall tey ji am na jigéen ju baax ju nekk ci wetam bu koy bu koy wax na ko am yërmande bu koy wax na ko président xale yi nga tëj ñii bàyyi leen amul njëriñ wala am na nit ku baax ku nekk ci wax parce que jigéen xamuñ ñooy ëpp yërmande. waaw amul jigéen bu baax heure sœur la fa yor OFCR la fa yor ko bon la moo tëj moo moom si boobu daal di tëjaate OFCR. Mm-hmm. loolu lay wax dama ne. Mm-hmm. dama ne boo amoon jigéen ju baax ci wetam xam nga jigéen day am yërmande. Mm-hmm. yërmande nag du yërmande ngis tal. yërmande boo gëm la di ko doxal te yàlla tax. nga toog ne ah coow li bari na ci réew mi am jàppal ñan lañ gën a xam ci senegal léegi Bokar Yàgg. Mm. directeur police Moussa Fall gendarmerie mm. Amakodou Diouf procureur Mamadou Seck juge Maam mm. Diallo doyen des juges juróom ñooñu koo wax sénégalais boo gis ñu limal la ko te loolu yëpp fitna la waaw fitna la loolu yëpp fitna la amul lenn lu ci sedd réew mi am jàmm doo dégg ñooñu ASTV. la ah, chaîne des patriotes jàmm de doo dégg lool donc mais tey boo bu bëggoon lancer sénégalais lan la ñu war taxawee jamono jii nan lañu ñu war a taxawee sénégalais yi. xam nga moo la nee naa leen législative bi def nañ lu ne. Hmm. conseil constitutionnel utiliser leen ko mu jël ay décision yu bon a bon toroxal seen bopp. Hmm. parce que fii loo fi def dañ koy nettali ñu ne kan moo defoon li ñu ne diw. loolu la tax ma ne leen il faut ñu éviter wu de se comporter en vulgaire crétin quoi parce que ëllëg nguuru Macky Sall day jeex. ñuy dox ñu ne ah kii moo daan wax tey. Hmm. lañ deful éliminer liste yeew yi éliminer bi ay nit éliminer lu ne tax nañu am majorité assemblée nationale. amuñu ko de. Sénégalais yi xamuñu sax ñun voté. alhamdulilah xam lan lañ def. Hmm. vote sanction xoolal wal leen tey ñi asamaan asamaan la wallaahi musul am. lii lu euh, musul am. Hmm. ñuy wax ne woy assemblée de mais ñoo dugal foofu ay saagakat. waay. ñoom ñoo fa dugal ay saagakat. non dañoo xam nga boo pertee lépp ngay yàq boo pertee grand lépp a yàq dañoo perte donc il fallait ñu indi ay saagakat ñoo xam ne pour pour yàq affaire bi carrément parce que dañoo perte. soo le pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal un président de la République n'a pas de majorité à nationale. Mhm. ba Sénégal di indépendance ba tey. Mhm. kon ba ba tey. Mhm. kon xam nañ. xam nañ de. donc vraiment mola Sénégal daal xam ban taxawaay lañ war a am. fulla fayda na pat kaw biñ bëgg dugal ci réew mi buñ leen ci topp. buñ leen ci topp de. ASID TV. la chaîne des patriotes police li mu jënd ak gendarmerie ci grenade lacrymogène hmm. bu mu tàkk piège bi ñu bëgg a dugal ci boobu sénégalais bi leen bu loolu yëpp am sénégalais yi nañ toog jàpp seen morse ñaam bu waa ji forcé na day doon candidat deux mille vingt quatre hmm. sénégalais am fulla ak fayda parce que gis nga loolu bu jàllee hmm. ku fi palawaat sénégal xam nga Macky Sall bu jàllee deux muy def lu muy njëkk a def sax xam nga ko yàlla nañ ci yàlla musal. moo laa tey ma wax la ko xam nga lan lay njëkk a jàpp. lan lay def. bu jàllee li muy njëkk a def day dind constitution bi limitation des mandats loolu lay njëkk def loolu mooy premier projet bu muy njëkk a def. moo tax ñu naan deux mille trente cinq loolu mooy tax mu ñu naan deux mille trente cinq. man maa la may boobu. maa la may loolu leer na léegi nag. bàyyi ma nekk ci gardien gardien de la tempe mi mi may wax ne ma. Euh, noppalul nag. non non noppalul mais mais grand xam naa foofu lañ lay bàyyee mais Sonko wax na leen ko. nee na leen te waxoon naa leen ko te Sonko wax na leen ko bii tey xam naa déglu nee na leen boo leen sàgganee ba waa ji toogaat fi man pare naa ci àdduna ak àllaaxira bàyyi may bàyyi politique bàyyi lépp dam sama yoon taxawee ne le waa ji torox ba boo tax mu ne deux mille trente cinq. xam nga luy seen plan boo déggee ñuy cinq. seen Bessèmé yeeg Saraña yépp di wax loolu. Hmm. xam nga mooy seen problème. waaw bu Macky Sall forcé jëlaat nguur gi. Hmm. bu tawalee tuuti xam nga lu muy njëkk a def. Hmm. lijjanti mën na dissoudre assemblée nationale def élection législative bu amee ak majorité bu confortable. majorité qualifiée. mu dindi verrou limitation des mandats ne da day di toog ba keroog ko neexee mu dem. loolu mooy seen projet. loolu nag xam nga ñun ñi ko xam. Hmm. gëm démocratie duñ ko nangu. mukk dee ñu ko gënal. wallahi la azim. voilà duñ ko nangu léegi daal. moo hmm. la. Hmm. beneen xeex bi man ma noppaloo tuuti dinaa ci dugg mooy Karim Cheikh Oumar Diagne dèjà ñun def nañ trois mois ñu xool ñu leen di libéré. Ah. dañ ñam yërmande. certes. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a mon frère. waaw jërëjëf grand. et xam naa. macha allah maa ngi nuyu tamit ñu lay jotaat ñëpp. jërëjëf jërëjëf grand. jërëjëf jërëjëf Mollah. namoon nañ la merci beaucoup merci beaucoup.